yootu troisième mandat réew mu yëngoo tii suñ ko réglé ci pet ba dëkk bi tàkk ci pet di suuf ci kaan ci mbow sañ si génn di wax duñ leen may carax bu ñu waree wax duñu wax mu jëy di tibb di warax këpp yàlla waan wi xalak waa réew mi rang yi leen sarax tàllal loxo di ñaan fondation marem ci barem chômage bu extrême ñàkk lu lekk ne nekk ci bésu carême tofa ñin feeñ feeñ ci douze ans de loo wax mu dañ Macky yaa mën a fen ban secteur bi dox du courant du ndox du job boo ñu jox fay jox jox <laughs> sénégalais bi ni mala ci daral lu waral xiif ak maral ay original bu falaw di leen taral lépp nax faral di sànnil carte politicien yi carte place lum lay gomloo bu faloo lu leen alal jaral taralal dul defaral bala faak dund gu saf saparal ñi ñu tëj ñi di dund ci dëj ñu jaar jaale jaalale keroog lañ fay gëj ñi dee tar tar ñu yëg ko këj bàyyi leen ay ati at ñu ñàkk ñëpp ñànki alla boni sénégalais toogal xaar yàlla góorlu benn mégoog sëm ñuy tax rëm ngay perte sa temps ci werante silibu mbaacoo joowu ñaaxarañ doon acte de la semaine yee fii comme sabar bu tas weccoo beccoo fii comme yee meen sexualité mooy sexualité asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di tiitaroo ñëpp di mbégee ñëpp yée di ñëw di wax euh, ci la situation politique du pays parce que quand on parle la situation du, du pays c'est très politique parce que euh, Sénégal politique bi moo accaparé lépp quoi politique moo accaparé lépp euh, ay doomu aadama sax bu ñu leen falee au lieu ñu liggéey mais dañuy bokk ci ay parti politique di liggéey pour nga pour nga mun a voter parti politique boobu wala di liggéey pour gañe confiance su parti politique boobu noonu <laughs> c'est dommage quand même euh, dëkk bu ñu demee ba nga xam ne ñiy liggéey ñooñu vraiment politique moo tax ñiy liggéey wala ñiy liggéey dañuy liggéey pour ñoom ñu nga mun leen a seen parti politique mooy wane ni Sénégal amul sax une vie euh, en fait sociale wala une vie nationale le Sénégal vie politique tout est politisé en fait tout est everything is politique in Sénégal lépp politique la ku teg xeer sax politique la ku yëkkati xeer politique la ku lépp ku nekk rek la ngay def yaa ngi ciy xool lan nga ci mun a am ci nit wala lan nga mun a am ci soppe parce que en fait le peuple sénégalais ne même pas respecté c'est vrai hein le peuple sénégalais n'est pas respecté c'est un peuple boo xam da nga koy teg lu ne et puis ça passe ça passe facilement comme de la vaseline ci euh, <laughs> derrière tu vois donc c'est un peuple boo xam ni très sincèrement ils sont pas voués c'est un peuple boo xam ni gis nga il faut il faut nga nekk biir Sénégal pour xam pour xam ni Sénégal wax ji moo ëpp jëf ji loolu loolu c'est-à-dire boo boo soree Sénégal wala boo mësul nekk ci xeex bi doo ko mun a xam da ngay xool autour de toi man mi di wax nii sama famille këpp xam nga koñ ba mu jeex man maa ciy xeex bu wax jotee ñoom ñëpp a ngi ci internet bi di wax sama koñ bopp koñ ba bopp koñ benn xeexkat laa man la musuma xeex nit ànd ak man musuma xeex nit accompagné ma musuma xeex fekk fa sama waa koñ te li ma dem ci xeex kenn xamul lu mu day mais ñoom ñëpp a ngi ci internet bi man loolu laa doon wax sama benn frère ma ne ko hey wax ji wax day bëri rek eh, gars yi du ñuy xeex kat ma ne ko xoolal suñu kër kan moo ci mus a génn xeex mu ne ma kenn mu ne ko voilà yow musoo xeex kee musul xeex wax ba sama famille yëpp dajaloo ma ne yëpp musoo gis kenn ku ci xeexi mu ne ma waaw loolu dëgg la ñaata yoon laa fi génn dem xeexi mus ngeen mus ngeen maa topp mu ne déedéet man leen te pourtant yéen a ngi ci net bi di wax comme tout le monde loolu mooy Sénégal boo duggee ci kër benn xeex la am wala kër ga yëpp amul xeexkat wala koñ ba ñaari xeexkat la am ñuy génn di xeexi mais wax ñoo ko dàq mur de lamentation loolu moo tax politiciens yi di leen jox ay exemple mais duñ ko dégg Mali moo gën a jege xanaa balaa nga dem di joxe ay exemple ay Birmanie di joxe ay exemple ay euh, peuple neeneen peuple bi jege fii Mali à côté deux mètres lu ñu def Sénégal musuñu ko def te duñ ko mus a def te duñ ko mus a def je le défie donc Sénégal moo dul peuple xeexkat bu gaa yi sonal seen bopp ak wax ju bari kenn mënul forcer sénégalais yi ñu xeex du ñuy xeexkat de nature yàlla moo moo ko def ci ñoom moo leen nattoo loolu du ñuy xeexkat ay waxkat lañ ku yaakaar ci ñoom xeex da ngay nax sa bopp. les gens ba nga gis politiciens dañuy joxe exemple buy sénégalais yi il faut ñuy génn di xeex xoolal peuple nangam tey dégg naa Ousmane Sonko wax ko beneen waa ji tam wax na ko peuple tel deux jours lañ def résistance mu résister loolu Sénégal munu ko munu ko dafa rëy sax ci ñoom. la dernière fois bu ñu génnee boo yi génn mu am trois jours de résistance sax de lu rëy ci ñoom la moom la ñuy bàkkoo partout ah da ngeen foog ne ñun mënuñu xeex gis nañ bi passé nga ne kañ deux mille vingt et un buñ fa booy yi génnee nga ne ñun mënuñu xeex duñu xeex kat ku nekk xool ko ci yow ku nekk rek xool ko ci yow autour de toi sa kër ñaata ñoo fay génn di xeex barki Seydina Mohamed sa kër boo deful ndànk yow yaa fay xeex wala kër ga ba mu daj képp kenn du fa xeex région yi sax xeexkat yi dañ leen di xam bëriwuñu région yi sax laa la ñuy xeex bëriwuñu ñu ñu xam ñu ñu ràññee ci xeex man sama kër kenn musu cee xeex te ñëpp ay révolutionnaire internet lañ de A à Z de grand frère à petit frère tout le monde est révolutionnaire internet wax ju saf sàpp kii bu saf sàpp bu xeex jotee kenn ci ñoom du génn ça c'est Sénégal ça c'est le Sénégal musuma xeex am sama benn nit bu bokk sama famille bu ànd ak man ci xeex musuma koo gis musuma koo gis du ñuy xeex kat gars yi di joxe exemple ay Birmanie lu xew foofu wala ay peuple syrien ay na non écoutez écoutez écoutez à côté au Mali à deux mètres de chez nous gars yi un peuple génn nañ révolutionné wu ba dàq président ba bu président ba sax mujj na dee dañ doon def tous les jours tous les jours plus de 500 personnes dans les tous les jours bu président ba buddee ku daw ça c'est au Mali ça ça c'est au à côté avant de donner des exemples de de de nation boo xam ni bërki démb dañu euh, euh, gouvernement bi dañoo teg ay loi pour daan ay ay ay journaliste wala pour tënk teg ay loi pour tënk journaliste yi dëkk ba génn loolu fan la Sénégal ñaata loi lañ fi def da nga mës a gis peuple bu génn na day xeexal ay ay ay journaliste kañ la peuple bu génn mat cinq cent mille personnes dans les rues di xeexal journaliste wala di xeex ay loi yu ñu teg journaliste loolu c'est pas le peuple sénégalais ça da xam peuple ba nga amal affaire loolu ça c'est pas le peuple sénégalais depuis quand depuis ban adduna le peuple sénégalais di génn gouvernement bi di teg ay loi pour dil si yu ci kaw journaliste yi peuple ba mat cinq cent mille génn loo fan la loolu waaw yeneen dëkk ok jox ma yeneen dëkk nee ma France nee ma Amérique ma Canada nee ma Birmanie nee Mali nee Guinée nee ma Mauritanie nee ma whatever ne Sénégal jamais ça n'existera pas et ça n'existe pas au Sénégal amul duñu xeex ay waxata lañ waxata wax rek lañu mën ay wax waxkat lañ ku la dàq wax nga ne ma kii ko dàq menacé nga ne ma kii la te duñu def dara au Burkina waa ok ay jour de résistance moo tax Ousmane Sonko di leen jéem a drainer ci yoon boobu résistance moo tax ma bugg a organiser parce que des fois day sa xol day chaîne da ngay xool yeneen dëkk yi gis ni ñu résister nga xool Sénégal gis ni ñu résister ci internet bi da def ay ree moo tax mu leen di mettre à l'épreuve Ousmane Sonko ne leen le 14 gars yi dañoo demander marche boobu ñeneen ñëpp ñoom ñoom ñoom loyalement ñoo ñu ay sénégalais lañ ñeneen ñu toog foofu yëpp le 14 dañ naan demandé nañ autorisation donc ñooñu le loyal et légal la ñuy wër Ousmane Sonko waxul lool de le quinze demandé wuñu mu ne le 15 résistance le 16 résistance demandé wuñu donc kooku résistance mi ngi leen di woo appel à la résistance ñeneen ñi moom appel aux lois et règlement demande la nañ ko accepté bu ñu ko accepté wul ñu toog ñeneen ñëpp ñoo c'est des sénégalais c'est des sénégalais ils ont l'esprit de sénégalais négocie tout se négocie ils négocient leur vie ils négocient leur liberté ils négocient même le fait de vouloir manger dañuy négocier c'est un peuple de négociateurs qui négocie tout moo tax Ousmane Sonko woo leen appel à la résistance ne leen le 14 gars yi bu ñu ko joxee bu ñu ko joxul résistance le 15 résistance le 16 résistance bu maa la wax ne doo gis 15 xanaa le 16 ngay gis quelque personnes yi ñëw maa la wax loolu le 14 buñ ko accepté dinañ ñëw <laughs> boo ko accepté déggoo ma c'est leur liberté se négocie les Sénégalais négocient leur liberté. Si c'est accepté, ils vont venir. Au terrain Akapes ou bien au terrain Nangam, d'ailleurs, vous drapeau, yuru, ouais, ouais, ouais, ouais, parce que c'est négocié, c'est gratuit. Défoulez-vous. Le 15, amul négociation, amul dara, ñëw doo nyolen, d'où vous 500 personnes, d'où vous On ne parle pas de 500 000 ans, 500 personnes, fa gis Le 16, pareil. Il faut Sénégalais di apprendre à résister. peuple yi gënuñu ñu peuple malien bii rek bu ñu ko xoolee ñun war nañoo rus xam ne ñii gënuñu ñu ndey gënuñu ñu bàyyi peuple malien bi day añ ñuy añ muy reer ñuy reer ñooñu ëpp jom fuuf xeetu nooteel bu dul xeetu nooteel Macky Sall mi ngi ñu koy teg ñëpp ne teg lu ñuy dund même peuple malien bi bu ñuy génn di sippu dund ñu lii nii lu ñuy dund nii te ñun ñu ngi toog di ko muñaale moment bu ñuy jëlee seen président di ko dàq moment boobu président bi nekkul entre oui ou non le président malien moment bi ko Mali di jële malien yi génn di ko jëlee foofu nekkul woon ci situation bu ñu nekk de suñ situation moo gën a grave foofu parce que ñoom peuple bi bañ ko fay jëlee nekkuñu woon entre le marto et l'enclume maanaam entre le oui ou ñun ñu ngi ci. ñoom bu ñuy fépp di génne maliens yi ñuy génn di fépp pour jëlee fa président ba activistes yeeg combattants yeeg journal yëpp journalistes yëpp ne woon ci kaso bi ñun ñu ngi koy dund. donc la ñuy dund ñun te jóguñu peuple Mali bi xaaj xaajaat bi dunduñu ko te jog nañ mooy wane ni peuple bi du peuple jógkat mooy peuple bi mooy peuple docile nalawër mooy peuple waxata perroquet kajo kajo au moment où peuple yëpp a ngi résister am dañuy toog di ko négocier il faut nga wax ak ñoom pour ñu mun a xam ni dañoo war a jóg xeex xeex bi yéen la war xeex bi yéen la war vous vivez au Sénégal H24 vous subissez de l'oppression vous subissez de la malgouvernance c'est vous les Sénégalais qui demeurent et euh, euh, euh, euh au Sénégal c'est vous ndimbal na ca fekk loxoy boroom yéen a war a jiitu ci xeex bi yéen a war a nekk ci xeex bi yéenay sibiir yéenay am problème mu faju yéenay am problème mu lekk lu baax kuñ ci ubbi biiram tey Sénégal yéen ñëpp seen biiri ceeba ci nekk ñu wur ak ndox ndox robinet yéen ñëpp moom ngeen añee mburu mburu bu cinquante cent franc ngeen dëkkee ak ak ndambe teg ci café Touba teg ci poto ndox ñu dóor leen mi midi bi ngeen añ ngeen ceeb reer bi ngeen dóoraat ceeb ñu ci lekk soo sax bëriwul suba ñu dóoraat leen ceeb mardi ñu dóoraat leen ceeb mercredi ñu dóoraat leen ceeb jeudi ñu dóoraat leen ceeb vendredi ñu dóor da ngeen di dóor ceeb ba bëri bëri kon yéenay subir yéen fii les aliments sont Les possibilités son énormes. Les gens travaillent, ils ont leur argent. Ils remplissent leur frigo. L'union peut lek lañu lek. kenn du len forcer luñu war de lek lekk ko. S'ils ont envie de lek tay hamburger, mom lañu lek suma brioche, ginaaw suma shawarma, ginaaw suma pizza, fi lu nga bëgg dundé ngay dundé. Parce que le gouvernement moo la tek ci situation xam xamni loo bëgg dundé dundé ko. au moment où au Sénégal président bi mi ngi def mi ngi leen di teg ay coono yoo xam ni di def lu ko neex dëkk ba ne selaw mel ni dara xewu fa chaque jour ay kàcc ñun fii lu ñu am envie lekk lañuy ñuy lekk kenn du ñu forcé fi amul ay ñëw leen añ ñu tegal la suluxu mbalax buggoo ko nga ne ko warax ndax boo ko lekkul dee ñëw leen reer ñu tegal la ceeb bu tooy xat buggoo ko nga ñëw ne ko warax wann boo ko lekkul dee teg ci sa potu ndox le lendemain ñu indil la ceebu kecax nga ne ko warax wand boo ko bëggul sax di ko lekk ñëw leen rek ngay dégg ñëw leen añ ñëw leen reer ñëw leen dëkk ñëw leen añ ñëw leen reer am na sax kër yu mu amul fii ñoom ñu ngi ci ay Uber Eats commandé loo loo a lekk toog rek euh, def nii rek ah tey lii lii laa bëgg teg teg teg dugal Uber Uber ñu ne ko farax indil la ko bu tàng jër nga lekk ba kii sànni yéene sonn ku feebar woote ñu indi ñu faj la ku nekk ci en danger woo 911 mu taxaw wala nga woo beneen police française wala nag mu taxaw ne la monsieur lan la nga ne kii moo may agressé wala kii moo ma bëgg agressé wala kii xool yu ma xool sax neexu ma loolu am na Sénégal donc yéen a war a xeex ku leen ko waxul dale naq jóg leen ngeen xeex sonn ngeen lool damb ngeen tàyyi ngeen toog ne tekk nag moo tax dañ dañ leen a sax jéppi di xool sax ngeen di lamantew ci internet bi man amatuma seen jot du ma leen sax xool ci internet yi damay sape parce que ndax mere yu may yu ma leen di mere par rapport ak yeneen peuple yu góor yàlla yi peuple yu dëggal seen bopp yi di xeex ngeen toog fu ngeen toog di lamantew rek di wax rek chaque jour mu jàpp kenn dugal ngeen di wax rek ngeen di wax rek balaa maa dey naa non bu ñu découragé loo tapet bu ñu découragé loo bu ñu découragé loo mais sàcc yi leen di sàcc bu leen découragé loo kan lan moo leen di découragé milliards yi ñuy rawale bu leen découragé loolu lan moo leen di découragé loolu rek bu leen yokkul courage xeex yéen doo doo leen xeexati doo leen xeexati sàcc yi leen di sàcc tous les jours injustice bu leen di teg tous les jours bu leen boo leen xeexatu loo leen di xeexee ñaata seen ñaata morom ñoo nekk ci kaso bi luñ def kenn mun na maa wax luñ def seen ñaata morom plus de cent soixante morom seen morom yéen yu am nday am baay dëkk ci ay kër la Macky Sall ne danga ci biir kër yi yóbbu leen ci kaso yi loo leen def mus ngeen mus ngeen génn mat cinq cent mille personnes dix-sept millions ngeen dix-sept millions mus ngeen mat cinq cent mille personnes mus ngeen mat deux cent mille personnes génn est-ce que mus ngeen mat sax cent mille personnes génn juste pour xeexal cent soixante personnes yi ñu tëj yu ñu tooñ mus ngeen ko def dama leen posé question yéen mu ñu leen tëjee ba léegi cent soixante personnes ñu ngi ci kaso yu deful dara ba xam yéen mus ngeen dajaloo yéen mat cent personnes wala deux cent personnes non cinq cent personnes maanaam cinq cent mille cinq cent personnes mus ngeen ko mat yéen génn ñaari xeex génn xeex pour libérer cent soixante personnes mus ngeen mat 160 personnes génn pour xeexal 160 personnes pour 160 jours mus ngeen ko def alors moo tax Macky Sall ku ko neex tëj fu ko neex tëj heure bu ko neexee tëj du mujj fenn wax rek kese la xool bàyyi loolu lay def. donc Sonko woote na le 14 le quinze le 16 pour neen résistance ñu xool. voyons voir ce que ça va donner ba xam di nga gis gars yi ni ñuy waxee ci internet yi ba xam noonu ngay def fekk ci terrain bi man loolu je subi man xam naa sénégalais yi internet rek lañ yor mooy seen réseau de communication si s'agit de descendre dans les rues si vide loolu moom jële l'ai appris au dépens depuis 2011 quand j'étais en Espagne et que tout le monde parlait sur les réseaux sociaux